asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel seen web tv al azhar touba point com ñëwaat na ci seen émission al academia tey nag ñu dalal boroom xam-xam bu mag ñu koy wax sëriñ Moustapha Diop Kokki ku ñëpp xam la fii ci Touba di boroom xam-xam bu mag waaye kem niñ ko baaxoo bu ñu dalalee kenn ku fi mësta jaar ba ba web bi xam ko bu baax dañuy faral di am aaday wax ay jaar-jaaram ngir au moins kiy déglu xam ki muy déglu sëriñ Moustapha Diop mi ngi judd fekk baax fii ci Sénégal en 1971 fi la jàngee alxuraan ci kër sëriñ Mor Mbay Siise ca Njaareem ginnaaw alxuraan ju sell mu dugg ci école sëriñ Cheikh Mbacke tàmbali fa njàngum xam-xam waaye nag ma ngi ko àggalee Égypte fa la amee i'dadiya ñuy wax brevet fa la amee itam bac fa la duggee itam université ci faculté usulu diin xismul aqida wal falsafa gannaaw ba ma fa jàngee ba jeexal itam mu dellusiwaat Sénégal di bay ci toolub lislaam bi ci diggante jàng ak jàngale ak yar ak taalif bokk na ci njàngale yi nga xam ne bind na ko muy yi may bëgg lim muy bi jëkk di nazariyatu nazariyatul xidma inda seyxil xadim te mooy téere bi nga xam ne tey moom lañ nar a waxtaane tey incha allahu moom la nar a def defe exposé bokk na ci almuridiya wa iskaliyatul bidaya bokk na ci al tawxid al irfani bokk na ci al uruj ila al xadrati samadaniya ala turasi alsaada al muridiya bokk na ci al tarbiya al ruuxiya inda cheikh al xadim bokk na ci al islam fi sénégal bayn al otruha wal waaqi bokk na ci al bina al aqdi lil fikri suufi al muridiya namuzajan yooyu yannat la ci téere yi nga xam ne moo gën a fés ci yi nga xam ne nii moom la jot a bind Moustapha Diop Kokki kon tey jii moom lañ nar a dalal mu war ñoo defal exposé ci téereem boobu di nasariyatul xitma inda cheikhul xadim kon mbokk yi maa ngi leen di ñaan ñu dégloo ko xel te teewlu ko bu baax incha allah.
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. fattaahu wahaabu yaa rasaaqu yaa maliki liftah wahab liya warsuqni bi kunil aana dayqi asil ajalan bil bishri mamaradin xata uqima li diinillahi arkaana yasiru jooxe li tuuba waxmini waqini adal wara wa tutib li sama iskaana laka sama wal araadi wal hawaa bila musharikin deewu man shiku bana ajib wasalli bi taslimin ala sanadi muhammadin wal tahab li faiqan bana assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare fu waaye man di nekk ci àdduna bi di leen taragal di di nekk ci ci ci keppaaru sëñ maanaam sëñ Lamine Touré doomi sëñ El Hadji Dame Touré yaakaar naa ku ñu ku ñu xam la ci ci yoon wi yoon wi nag buñ ko buñ ko waxee moo yoonu taay bi tariqil xàq ñu bëgg yàlla ñu koy wut rek xam naa kon moom moom moom la jublu xam naa dañoo bëgg a waxtaan ci xitma xitma nag mel na ne lu yees la ci théorie waaye ci pratique moom ne nekkoon ci na fi démb xam naa liñ ci war a jëkk a waxtaane rek mooy xitma concept bi ndax xidma sëñ Tuuba fekkoon na fi suufiyanke yi waxoon turuwa waaye mel na ne joxuñu ko woon gëdd gi mu ko jox nga xamante ne sëñ Tuuba moom dafa tënk ab liggéeyam bépp ay xalaatam ay gisinam ak dundam lépp mu tënk ko ko ci xidma kon léegi kon loolu kon moom lu lu mat a xam la nga xam ne mooy li nga xam ne moom la sëñ Tuubaa bëggoon a wax adduna xam naa bu ñu xoolee taarix bi ci ci biir ci biir yoon wi maanaam ñi ñuy tuddee école bi ñu bi ñuy tud tuddee Touba mooy sëñ Touba moom moo moo ko moo ko jëkkoon a wax moo waxoon ne kat moom maanaa xidma mi ngi ko tàmbalee ci assassin mille mille trois cent un nee na nag mi mi mi ngi ko feeñeel ci mille trois cent treize waaye nee na mille trois cent un add maraxa min assassin la wax ma nga xam ne soo nee na moom xol bi nëbboon na ko ci mille trois cent un sëñ bi nag kon nee na it nag ala la si talaba kawniyal xadim lahu salaama dil bariyatil xadim nee na ki nga xam ne moo sàkk woon ma doon ab liggéey katam te mooy yent bi alayhi salaam moom moo ko nome ne ko kaay doon sama ab xaadim wala ab ab xadim kon ñu bàyyi xel ne kon buñ ne kon xaadim rasul ñu ne mooy anasum nu malik ñu ne kooku de xaadim la mbindaan la mu nekkoon ci kër ga doon liggéey kii nag duutu loolo kii mooy xalifaam ci ci ci ci xeet wi loola sëñ Tuubaa kon moom léegi wax na ko nee na sax bi ma demee ci gaal gi bi may dem Gabon ci ci gaal gi ci la ma suñu ba ma ci xamal ne ma yow kat yaay léegi liggéey kat tu tu yonent bi ci yaay xadim maanaam léegi nomination bi léegi wéyal nañ ko maanaam Cheikh Mouhamadul Bachir nag borom mi nenul baaxil xadim mooy kii jëkka découvrir maanaam léegi ne ne xitma mooy mastkey mooy ceeb bi ji nga xam ne ku ku bëgg a jàngat sëñ Tuubaa ci ngay jaar loolu suñ suñ Basiru ci sama gëstu loolu loolu loolu la ma jox man ne ma kat suñ suñ Basiru moom moo jëkk a def loolu moo jëkk a feeñal ne ku bëgg a jàngat sëñ Tuubaa ci ngay jaar. Abdoulaye Wade professeur Abdoulaye Wade ba noppi di président ba woon yàlla na ko suñu boom di gërëm mooy ki nga xam ne moo jëkk maanaa léegi maanaa léegi appliqué concept boobu ci mille neuf cent mille neuf cent soixante-neuf donte ne nag foofa travail lay lay waxe travail lay jële lay moom lay utiliser foofa ca ca ca gëstu ba mu defoon ca booba waaye nag nag ku ne xam na ne booba it nag munta wax lu lu may loola ndax làkk bi muy làkk xam naa booba te booba ñi ëpp ci murid yi bu bu buñ ne xitma muy jëf jëf daa xaw a dis ci wax gi liggéey lañ koy tudde waaye ku ne xam ne ne booba liggéey booba mooy mooy jëf ginnaaw ba am na benn orientaliste bu ñuy wax George Sangam fàtte la de si turba moom fàtte naa ko ab ab tubaab la ab tubaab la ab français la ci 1973 moo jëkk a waxaat ci lu dul murit nga xam ne ko xam ne bokk ci murit gi moom ci émission mu ne daal gis naa ne xitma mooy concept bi nga xam ne ku bëgg a gëstu Sëñ Tuubaa ci ngay jaar ab français la ginnaaw ba ci 1974 professeur Saliou Boussalaam moom it di woote xitma ca Maroc ne gis ne daal moom moom it concept concept boobu daal ku bëgg a jàngat Sëñ Tuubaa ci ngay jaar maanaa léegi bi ñu demee ba 1996 man mii di wax ak yéen Moustapha Diop Alkokiyu daal koy moom théoriser def ko ab théorie boo xamante ne mat na daal ci aw digg ne moom nekkat nii mooy Sëñ Tuubaa xam ne loolu théorie boobee moom la ñuy bëgg a waxtaane xam naa sax danañ danañ gis fii am na benn xale bu jàmbar ku ñuy wax sëñ Mbàkke Faal maîtrise am ci maanaam université Cheikh Anta Diop def na ci nga xam ne maîtrise nga xam ne léegi sama théorie bi nga xam ne moom moom laa def moom ci moom la intimat moom la jël moom def ko maanaam léegi teesam donte ne waxoon naa ko ne ko dama bëggoon nag nga critiquer ko ndax ndax mooy tax yëf yi gën a mën a jëm ci kanam mu ne ma daal moom daal da ko bëgg a xam noonu rek leeral ko daal moom mu jeex waaye ci nga xam ne kon moom daal xat wa ula la waaye kon daal nekkagul lu kii ndax léegi bu doon da ko critiquer wax ne fii la manqué fii la nañ ci ko nangam kon lay gën balaa booba dañ dañ na xidma concept concept maanaa léegi ak terme bukkuñu terme terme science yi nga xam ne yu mel ne scientifique yi ñooy jëfandikoo terme wala boog yi nga xam ne ne mais naa wax ne nii la te bu ëllëgee du du sensé lu lu bari waaye nag yi nga xam ne moom da- day so- soppiku ñoom concept ñoom la ñuy jëfandikoo la ñuy tuddee science humaine nga xamante ne moom ay sociologie ak maanaam léegi ak yi nga xamante ne ak maanaam léegi tasawuf yi nga xam ne daal kenn ku nekk mën nga caa am saw diggin yooyu yooyu moom concept yi lay jëfandikoo philosophie xeet yu mel noonu concept nag kon mooy loo xamante ne la benn marocain waxoon ne innal alfaasa tuuladu jawfa walakinal mufakkira huwa alladi yuwazifuha baat yi moom day juddu nekk lu widd boo gisee sax noonu ñu tardé ñu naan bu ñu ne philosophe ñu ne kat falsafa fu mu jógee ñu ne ña nga jógee ci grec grec ndax nangam nangam philo bi du waxi dara ndax bu Pythagore su ci boppam ma ngi ko jëlee woon Égypte te kenn du tubaab bi du ñu wax ne mukk ci àdduna philo mi nga jógee ci kii xanaa xanaa waaja Martin Martin Bernal ab américain la noir américain la moom dafa wax ne mi ngi jógee ci Esba philosophos nee na sophos ci boppam tubaab bi amuñu ko làkk tubaab xamu ko. waaye mi ngi jógee ci ci ci ci Esba nga xam ne hiéroglyphe yi ca lañ koo jëlee lu ca mën di am kon maanaam léegi xitma xam ne ab concept la mi mi ngi taxawee ni cogito Descartes rek taxawee. cogito ergo sum Descartes saa bu ñu waxee ne cogito ñëpp seen dem seen xel dem ci Descartes mu tënkal leen xalaatu Descartes non it naka noonu suñ suñu tubaab bu ñu ne bu ñu ne xitma rek. day të day tënk lan la ba bëgg a wax àdduna Descartes wax na leneen ci ak ay yeneen yu bari waaye nag cogito ba moo gën a moo gën a simplifier dëgg-dëgg ay xaatam xam ne moom da ko yombal ba ñëpp man mën ko jël kon léegi kon kon léegi Sëñ Tuubaa xidma xam ne sax moom xaadim rasul wax xaadim rasul wala xaadim rasul noo ko waxee rek baax na mu lay firil ne nekkat maay ki nga xam ne damay liggéeyal yonent bi ay alayhi salaatu wasalaam ñoo noo noo koy liggéey mu ne xanaa ka Mustapha wala bi bi bi Mustapha ni ni mu ko tànne noona laa koy liggéeyale xam naa kon bu ñu doxee tuuti daal di nekkat nu kat danoo bëgg a ci xam nag Sëñ Tuubaa xidma bi lan la xam naa maanaam maanaam ci kon dañ naan kon kat Sëñ Tuubaa buñ bëggee xam xitma ci moom mooy lan ñu ne ñu ne parti bu bu jëkk bi mooy dañ naan limbind ba noppi yar ci ba noppi jëfandikoo ko muy appliqué ko moom ci boppam ba noppi yar ci am mbooloom loola mooy xitma li nga xam ne da ko bind jëfandikoo ko ba noppi yar ci mbooloo mi loola mooy xitma ñu ñu ne waaw waaye nag saasu wuute amee ci diggante lim bind ak lim jëf nu ñuy def ñu ne kon su dee lim bind ak lim lim jëf am na woon na wuute dañ fiy bàyyi lim jëf jóge ci lim bind jëm ca lim yargaay gisuñu ne gisuñu fenn foo xam ne maanaa léegi lim yargaay yi nga xamante ne mooy firi firi li nga xam ne moom la bind gisuñu ak wuuteem waaye gis nañ nag li mu bind. mu wuute ak li nga xam ne moom lay jëfandikoo léeg-léeg ndax léegi gis nañ ne mujj gi wane ñu woor na ñeent fukki fan yoo xamante ne guddi bëccëg du lekk du naan ci ci wisaal loolu te gis nañ ne loolu bokkut ak lim bind bokkut ak lim yar gaayam yi ko kon léegi loolu kon ci tënk rek mooy kon daal Sëñ Tuubaa kon am na kon ay jagle su maanaam kilifa gu ne am nga ko nit ku ne ne am nga ko jagle jagle lay ci ci yooyu moom kenn du ko ci. xool di di su ko ko ci topp waaye dañuy jël mbind mi firee ko lim yar gaay ñu ne kon moom kat su su boobaa kon moom léegi loola ko kon mooy ci ci xitma kon noonu maanaa danañ danañ soxla nag kon fii kon ay mbir mooy nag concept yi nga xam ne Sëñ Tuubaa moom la doon jëfandikoo ngir ci ngir lim bëgg a wax nit ñi mu feeñ ci ñu ne ñu ñu ne kon maanaam ci nañ bàyyi yi xel lenn it lu am solo mooy xitma ci boom rek baat bi baat bi wolof su bu la dee traduiral maanaam li li ñuy wax a taklif ci feq maanaam léegi mooy togg jëf mag ñi duñ ko firee togg liggéey ndax ci xam nañ ne togg toggu liggéey kon li li muy firi mooy liggéey de ab coono la donte ne sax kat maanaa léegi yëkkati abaratu rek ci rek la coono xol sax mën na ci ca ca juddoo te tey jaamu yàlla wa innaha la kabiratan illa ca la la xaashiin maanaam julli lu muy julli di sut maanaam julli di sut ci ku ragal ga yàlla konom sun sun bam nanguwut maanaa léegi ak jaamu yàlla day diis kon léegi xitma kon kon léegi togg jëf kon mën mënatul firi firi liggéey mag ñi ne mag ñi kon ne kon togg jëf la togg jëf nag tey soo soo ko traduire waate ci arab mu jox la kon léegi at taklifu bil xitma mooy togg la xitma maanaam togg la jëfal yàlla maanaam togg la liggéeyal yàlla kon nun maanaam danañ danañ gisaat ne ne ne ne ne ne ci kat foofu boo xoolee xitma da ngay gis ne ci misaal sëñ sëñ Saliou su wootee xel koom ñëpp pu dem maanaam bis bi ñuy dem bis bi nit ñi ne cëpp xel koom dañuy bég lool bu ñu ne xel koom jeex na ñëpp mer kon bu doon kon liggéey la kon bis ba ñuy wàcc ci ci la ñuy bégee waaye li muy jëf nag moo tax bis bi nga xam ne ci la ñuy wàcc ci la ñuy amoon naqar xol. misaal nee naa benn patron mën naa dem ndakaaru maanaa léegi jóge xel koom ñëw ndakaaru benn bonam ne ko jox ma ma ma ratu bee day mer lu ko waral jox ko ratu bi liggéey la waaye xel koom jëm doon liggéey di fënd ka naan ndox mu nëx loola xitma la loola jëf la moo tax moom léegi dacaa gis boppam ma ne kon misaal obsédar maanaa lawbe bi liggéey na ñaari tuq tuq bi mu nekk tuqos obsédar la dañ koy teg ci ab saal wala mu néeg muy ab taar léegi bii moom léegi ab jëfandikaay la dañ ciy dëbb ay nangam nangam ci ca waañ wa ñu ne mu ne bii ñuy yóbbu ci ca ca waañ wa nag téeméer la moom laa ko jaayee bii bii ñuy teg ci ca saal ba maanaam junni ñu ne ko waaw luy différence bi mu ne lii obsédar la maanaam lii aar mooy lan mooy looy wane sa gëm-gëm sa sa gis yéen ci àdduna bu dee nag jum tukaay moom du lenn moom moom moom moom saa buñ ci dëbbee ci noppee nañ ca mën nañoo ba ba xam sax ban law bee moo ko ko ko liggéey waaye nag obsédar moom léegi day feeñal gis yu nu dégg yu nu waa ji kon foofu fu kon maanaam da nga ciy gisee ne kat sëñ Tuubaa li ko tubaab ba waxoon ne ko nu nu ndey yeex nañ laa xam. bu ñu la xamoon dañ lay bàyyi nga jiitu ñu topp ci sa sa ginnaaw ndax nun tubaab nun li liñ bëgg ci nit mooy mu nangoo liggéey ba noppi sawar ja waaye nag yow man nga yow liggéeyloo nit yow ba noppi mu mu ca bég sëñ tubaab moom mën na laa liggéeyloo ba noppi yow da ngay bég te tubaab moom mu mënul loolu lu ko waral mooy ne yow tubaab bi da lay liggéeyloo sëñ tubaab nag moom da lay xetmaloo léegi kon léegi moom am na ko am na kon xitma am na kon méthode méthodologie bi bi nga xam ne maanaa léegi moom la la am nga xamante ne kat ci lay jaar ba loolu mën a nekk nga xam ne ne léegi féex googu nit ki di féex buy liggéeyal yàlla mu am ko maa ngi ko tuddee al i'timad allah mutabadal mooy lan maanaa Sëñ Tuubaa day am suuf am ciment am ay maçon am barab bi ba noppi naan yàlla may ma kër ma ne xam ngeen lu ko waral la ca Madina Diinatul Fadila ca bu jëkkoon gaa yi ñoom seen projet dañ ci dugalu lu toon sunu borom Sëñ Tuubaa xam na ne man ngaa am suuf am ciment am maçon am barab ba noppi te doo mën a am kër lu ko waral bu bu ci yàlla andul sëñ Tuubaa nag nekkoon kat mooy i'timaadul adnaa alal a'laa ka diamatin ontologiya tataqaatau albondayni naasuti wa laahuti wifqa qaanuuni tamasul wa tajarud te mooy tariqatu basil a'laa shufratuhu al ishariya abra al axar maanaam léegi mooy yow mi gën a ñàkk doole yaay sukkandiku ci ki ki gën a am doole mu yàlla jaam bi nun ay jaam lañ maanaam noonu lépp lu lu lu ñuy wut lépp lu lu ñuy bëgg dañu koy wéer ci ci suñu borom waaye nag du du ñu teel dox nag ñu ngi sonn di liggéey di di def na nga waaye xam nañ ne yàlla mooy sottil loolu rek la maanaam no- ma- ma- nga xamante ne ne ne nekkoon day mujj sax kat waa ji day mujj mel ne ab robot robot ab robot boo xamante ne maanaam yàlla moo ko moo ko may ceen muy dox muy dox waaye nag ku kuy xool dara nga naan robot bi day mi mi ngi dox robot bi day ma ngay jël jël ndox ma robot bi day ma ngay def nangam robot boobu robot bi moom la ñuy junj léegi te fekk na moom robot bi moom amut yàlla am Sëñ Tuubaa nag léegi nag bëggoon léegi nit nit nit ki saa bu yëgee ne yàlla mooy soppandiku ci moom di di di ko jëfloo su boobaa léegi moom léegi duutu gisati boppam yàlla la moom moom la lay gis su boobaa su su boobaa kon léegi duutu am kon ab coono loolu kon mooy.